voilà lolo lolo en gros enseignement yu ma yu ma yu ma retenir woon si hmm. si bi donc dernière façon bi moy légui nak lu aju si usul fiqh hmm. euh des règles fondamentales hmm. en matière de fiqh euh, bu nga ça s'applique à des cas particuliers donc lolo dernière partie bi hein ñu wax ne que euh que sunna <coughs> sunna est particulariser al quran ndax alcorane par exemple dafa ne medd dagan na. medd medd jeri gi. wa medd lu ci wax. dafa dag dafa astaghfirullah dafa ki dafa dafa haram astaghfirullah medd dafa haram mais ci hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sallam ñëw ne medd ge dagan na. kon jàpp ne que sunna da fay particulariser alcorane xam nga ndax leer na. waaw voilà kon lolu ñu jàpp ko. kon ñu tamit que euh, ko que ne euh, euh, suñu référence nekkul mm. bien sûr mais nekkul juste mm. am am en tout cas li nekkul si pas mm. kon man par exemple. kon nag ñu xam sunna ce sont <coughs> les références.

kon daganul quand quand on a des doutes de rester dans le doute en gros donc il faut que dem nga laccé pour que ton doute soit levé. Mm-hmm. Voilà. lolu jàng nañ ko ci <coughs> euh, <coughs> ak beneen bi su quand on a des des difficultés il faut l'enlever ni mm-hmm. en gros la nécessité elle fait loi mm-hmm. quand on est dans le dans le besoin nécessaire c'est la nécessité qui prime par rapport à tout voilà l'ultimate tamit voilà en gros pour conclure mandal, retenu retenu depuis euh, il y a trois mois donc quelques notes donc j'ai tout repris euh, peut-être ma hmm. mais en tout cas que na voilà. السلام عليكم ما شاء الله Félicitations du jury. Étonnement. ما شاء الله الحمد لله جزاك الله خيرا waaw mu koy tabaraka Allah wax dëgg yàlla moom daanaka voilà rien rien RAS waaw étonnement du jury voilà léegi question bi lan la su man euh, suñu xoolee njëru imam Malik. Mhm. te ñun bokk en tout cas pour majorité. ngir imam Malik escargot dagan na. Mhm. légui man ma am ben question ci bir lolu moy nan lañu xamé ci hadith bi ne escargot dagan na lek parce que hadith bi dafa ne euh al khillu maytatuhu meddem dagan na meddu géej donc comme escargot produit de mer la kon même mo donc donc illicite dagan na jeex na masha Allah waaw waaw uh-huh. yéen daa am loo leen di lijjanti ah, du dund jigéen non mais kii bi muy wax en fait c'est les kii la euh, quoi coquille de wax ndey coquille de wax kii coquille waaw waaw mooy lan loolu kon leeral la lool. escargot escargot bi ma jàpp sa fa mooy Sénégal bu nawet ñëwee bu tawee bàyyi leen loo liggéey di dox am ñaari antenne loolu ay wax

waaw day leer waaw bismillah waaw ñu jàpp ci li nga wax ci mbokk waaw mbokk génn bi mbokk non dama bu jéeri ji moom d'accord nañu daganul mais loolu moo tax xana fii xan xanaa bi lay rahmatullah alayhim génne ko ci seen wax voilà bu voilà bu géej bi nag nit yi des dañ ko dugal ci biir mbéyum géej ci wax sàng voilà ci wax yent bi voilà sallallahu alayhi ne mbéyum géej nag kon boobaa ñoom moo tax ñu conserve kon kon kon ñu wax ko foofu ñu ne bu bu dee bu ci géej bi dagan na alors que xan xambali bi moom fi mu xoole mooy dani au moment où dafa xaram moom ci boppam loolu dafa mu nekk ci géej mu nekk ci jéeri ji ñoo yam kon day xaram donc léegi foofu ci kii la par rapport voilà ci loolu ban la ñuy jàpp non bi li mu wax tamit wax sang bi la ko teg mm-hmm. sallallahu alayhi mm-hmm. parce que sang bi sallallahu alayhi wa moo waxoon ne dafa xaraam ñu rey ko au moment où dafa xaraam ñu rey ko kon li mu teg mooy dafa xaraam ñu lekk ko mm-hmm. dégg léegi ñoom tamit foofu lañ ko xoole c'est-à-dire ñoom waxuñu lu wuteeg li sang bi wax sallallahu alayhi wasallam c'est que fekk rek nag ne kenn ku ñu nekk ni nga ko euh, euh, voilà ni nga ko xoole interprété voilà kon daal xam naa ne bañ ko loolu laa waxoon keroog dama ni balaa nga bañ ko lekk moo gën a wóor. waaw déggoo li ma la wax man personnellement xaw ma ci dara sauf que nag xam naa ne imam Malik par exemple rahimahullah bokk na ci yi nga xamante ne lay wax ne rek déeb ko lekk daf xaram parce que dafa bokk ci xabaa'is yi te xabaa'is mooy lépp loo xamante ne dafa sobewu maanaam dafa dafa bon dafa teeyul mooy sax yi lu deme nekk ay sax lu deme nekk euh, ay jiit ak yu mel noonu loolu amul teg texte bu ñëw ne daf xaraam xam nga amul même xana moo tax xanaa xanaa moo tax xambali yi sax ci buntu boobu loolu lañ wax maanaam ñoom dañ ni par exemple day jiit la wala jaan wala yooyu nga xam ne ay sobe lañ moo tax ñu xaraam si moo tax voilà moom yooyu moo tax ñu te ko ñoom am ñun am na bu dee day dund ci jéeri ji bu fekkente ne euh, euh, astaghfirullah waxuma jiit ak jaan de li ma jubloo mooy ay sax ay euh, ak yi nga xam ne daal dañ nuroo ak ñoom voilà ak yu nuroo ak ñoom yi nga xamante ne duñu am deret yuy wal waaw waaw xaar mu ñëw ak lu demee nekk weñ ak ay yoo ak yu mel noonu yooyu nga xamante ne

dafa téré ñu lekk ko ndax loolu ndax liñ nek sobe yoy comprendre nga wax bi voilà léegi nag par contre man xamuma lu ci duggal escargot bi ngay wax comprendre nga li wax voilà wallahu a'lam légui nak amma ay soccu soccantal ak euh eh, mom dagan bi mu dagan mom leer na ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam wax voilà na dagan na ak tamit ñom lekkon nañ ko voilà criquet yi mooy soccantal mooy sotcat sotcat sotrel mooy sotcantal sotrel sotrel waaw sotrel non criquet mooy bu ñu bëree mooy njëriñ waaw bu ñu bëree la ñu nekk criquet bu nekkee voilà quantité bu nekkee benn mooy sotcantal voilà loolu la voilà bu dee benn bu dee benn nag la moom sottantal lañ koy wax bu fekkente ne nag dañ bëri njéeréer lañ koy wax voilà bokk na par exemple yi Imam Malik wax par exemple da daf xaram par exemple mooy lëppalëpp voilà lu paalub lu paalub li tax mu tere ko mooy dafa bokk ci yi nga xam dafa sobe sobewu nii rek maanaam c'est pas parce que alquran moo ñëw tere ko yooyu par contre jaan ak jiit yonent bi sallallahu alayhi moo nañ leen rey comme nag dañ dañ leen nañ leen rey waaw dañ di dóor ñu kii ñoom duñ leen rendi comme ni ñuy rendee yi si des maanaam comme ñu ne en tout cas bokk na ci li ñuy xàmmeewee lu xaraamale mooy buñ ne nañ ko rey wala nañ ne wala ñu ne buñ ko rey buñ teree ñu rey ko mooy dagalut a lekk bu teree buñ teree buñ nee nañ ko rey mooy dagalut a lekk tamit voilà euh, wallahu alam par contre euh, waaw baal ma euh, am na benn question bu ci sama bu sama xel dem demoon sama fàtte woon ko keroog mooy ci wàllu fiq bi ba tey mooy yiñ ne mbir bi bu fekkente ne dafa rey dafa dee géej gi génne ko dagan na lekk comme ni nga xam ne noonu la siiwee ci mbiru euh, Maliki Shafi'i ak Hanabila rahmatullah al jami noonu la ñu waxee ne mais par contre d'accord nañ ci benn point borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci benn point mooy su fekkente ne par exemple mbir mi euh, euh, animal bii dund ci biir géej gi dafa am poison wala day gaañe day reye maanaam boo ko lekkee day day day maanaam da lay feebarloo ak yu mel noonu wala boog voilà voilà dafa am venin dafa am voilà euh, tooke kii euh, dangar bu ne ci moom wala boog su fekkente ne euh, dafa dee génn ci biti ñu ne dagal na lekk mais bu fa yàggee ba de telle sorte boo ko lekkee feebar maanaam mu nëpp wala yu mel noonu boobu day xaram loolu tamit ñu préciser ko ci loolu moom laa fàtte woon préciser ko Allah Allah léegi kan moo wax na yow la parce que ko rek wax jom quoi jom ci kaña ci la bokk. kaña ci ci yi ñu wax nañ ko rey ci la bokk. waaw jinax. waaw xaw ma lu ko ci dugal. waaw. par contre kii ci la bokk. um voilà um ko ci la bokk ci yi ñu war a rey ak mbóot waaw ak mbóot mbóot tam ci la bokk déedéet mais pourtant duñu sobe avec tout ça duñu sobe parce que loolu dinañ ci ñëw insha allah ci beneen bu ñu yegsee ci beneen xadis mooy xadis numéro onze bi ñu doon wax mm-hmm. waaw bu ñu ci yegsee insha allah waaw remote en fait côté xam nga escargot dafa bëri en fait ay façon. waaw escargot mu géej gars yi dañ koy bu géej la dagan na. loolu amul sikki sàkka. man na sànq wax yaakaar naa boobu ngay wax. voilà kon escargot la. non man man man bu kii laay wax bu nawet bi. Oh, voilà waaw boobu moom xaw ma ci wax lu leer. waaw. Ah, ah. dafa am loo leen doon wax ah man xaw ma ci dara de mënu ma ci toon fi mu toll mënu ma ci mënu ma ci toon non bu géej moom dagan na waaw man na xawma en tout cas en tout cas franc à vrai nuruwul lu xaram non bii bii bii bii sax bii nekk fii nuruwul lu xarab parce que déjà amul deret xam nga amul deret te yu amul deret yi dañuy dagan ci cosaan yu amul deret yi lu amul deret rek day dagan ci cosaan ba mu def mu nekk loo xam ne dafa sobewu mais nag man xaw ma maanaam mënumaa dogg ci benn àtte fi mu toll ci loolu voilà wallaahi waaw waaw bu dee waaw waaw léegi daal voilà léegi pour revenir ak insha ci wax ji ñu gërëm sëñ Alioune Dramé bu baax ci euh, exposé bi ndax wax dëgg yàlla euh, yaakaar yaakaaruma woon ni dina retenir nii mbir yi waaw yàlla xam na ni yaakaaruma woon ni vraiment dinañ ko retenir nii alhamdulilah euh, comme que vraiment l'essentiel ci li nga xamante ne moom lañ doon moom lañu

est-ce amna ku jàpp keneen ko xamantene wala ginnaw alba arbaa yi manam ñent ñi ak ibnu abi shaybata ah ah ak ñom imam malik imam shafi ak imam ahmad rahmalahu jamia est-ce amna ku jàpp ñeneen ño xamantene solo nañ hadith bi wala wéral nañ hadith bi wax naa pare waxal xam naa ci ñaar Seydou waxal kan. loolu wéral nañ bi wala solo nañ xadis bi xataada ci kan la solo nañ xadis bi xataada du saxaab yi déedéet ibnu omar waaw ibnu omar ibnu omar lan na ok solo na xadis ci saxaab yi la bokk li ko solo la bokk ci saxaaba yi ko solo la bokk ak kan ibnul munzir lan na wéral na xadis bi ak kan imam an-nawawi rahimahullah lan na wéral na xadis bi ak kan buxaari imaamul buxaari naam wéral na xadis bi waaw al imaam alxaafis ibn xajar alxaafis ibn xajar wéral na xadis bi ak kan danga xam muslim lu mu wax ci xadis bi waaw kay kon nag <coughs> kon lu tax nga koy tudd parce que boo xoolee pratiquement lépp loo xam ne imam al-Bukhari wax nañu ko muslim wax na jëm ci loolu maanaam hmm. déet déet bul wax loolu suñu wax loolu et nu ku la ko wax sax yow <laughs> daal moom fit eh, ak kan waaw non mais <coughs> ni ñuy xamee nan la ñuy xamee ni diw wéral na xadis bi nan lañ koy xamee diw wéral na xadis nan lañ koy xamee mooy buñ ko rapporté ne wax na ne xadis bi kat xadis bu wér la ndax nangam ak nangam bu amee keneen ku rapporté loolu wala moom mu bind ko ci téeram wala yu mel noonu comme ni nga xamee ak Tirmidhi yi ni wéral na ko dafa bind ci euh, ci haza xadisun xasanun saxiix ni xamee ne an-Nawawi rahimahullah wéral na ko mooy ci al-Majmu' dafa bind ne haza xadisun saxiix voilà xadis bu wér a ngi nii et cetera maanaam kon noonu la nga xam ne wér nañ ko waaw donc naam ci ci lu amul ci lu amul weerante mooy imam muslim jàpp na ne xadis bi xadis bu wér la comme ni imam al-Bayhaqi rahimahullah waxee nee naa imam al-Bukhari ak imam muslim li tax indiwuñ hadith bi ci seen saxiix ànd ak xadis bi xadis bu wér la mooy wuute bi am ci ñaari raaw raaw yi mooy al-Mughira ibn Abi Burda ak ak Saad ibn Ah, ah, ah, ok euh, abi salama ñoom ñaar wuute gi ñu am ci ñoom ñaar loolu moo tax mhm. donc euh, loolu waaye mënuñu ne rek imam al euh, imam Muslim par exemple dafa wéral xadis bi au moment où taxaluñ benn wax bu jógee ci moom bu koy wane ak ak ak kan moo solo tamit xadis bi téereem wala wala kan jan ci sahaba yi sahaba yi yenen sahaba yi ko solo kan ibnu mas'ud dégg waaw abdullah ibn umar wax nañ ko wa ibn abbas okay Abdullah ibn Abbas xadis bi am na saxaaba bu ko solo te xadis bi saxaabu boobu solo moo gën a wér boobu moo gën a wér bii Abu Hurayra bi la radiyallahu anhu am na beneen saxaaba bu solo la déedéet saxaaba boobu solo moom solo na xadis moom tamit mais pourtant euh Ibn Hajar rahimahullah dafa tan hadith Abu Hurayra au lieu de sahaba boobu te pourtant hadith sahaba hadith boobu mo gëna wér moy bi gëna wér ci hadith bi hmm Sufyaan as-Sawri du sahaba saxaaba taabi'i la loolu taabi'i taabi'i sax la moom taabi'i taabi'i la ansaari la ah Aboubacar Siddiq wala radiyallahu anhu solo na xadis bi mais du moom déedéet anas anas solo na xadis bi mais xadis boobu bi anas solo wérul mais ba tey mën nañu jëli nañ ci anas xadis bi waaw radiyallahu anhu mais du mom aussi bilal solo solowul hadith ansaar yi na bokk na ci ñi ëpp ñi solo xadis waa ci saxaaba yi gën a bari ci ñi solo xadis saxaaba bokk na ci ñaareel indi bi mooy ansaar yi la waaw kay bàyyi Jaabir ibn Abdallah ala radiyallahu anhu waaw kay waaw waaw indi bu Abu Hurayra tamit loolu waxoon nañ ne amaan na lan moo tax waxoon nañ ko de jour boobu lan lañ waxoon ne na loolu moo tax ah ne amaan na loolu moo tax amaan na mooy peut ah. ah jànguñu ko dañ ne amaan na li tax mooy dafa bëgg a wane maanaam ngëneel gi Abu Hurayra sa amee radiyallahu anhu ndax moom moo ëpp li mu lan solo ci ay xadis beneen bi tamit amaan na mooy le fait que xadis bu Abu Hurayra tamit radiyallahu mooy xadis moom moom la presque borom xooxam yëpp presque solo ci seen téere yi ah ñeenti ñuy waxoon nañ leen imam Shafi'i imam Ahmad imam Malik dayet imam Malik la ko ñi ci des ñëpp jële ci moom ah ah ñoom ba al-Bayhaqi yi Daaraqutni yi Ibn Hibbaan al-Haakim ah ad-Daarimi at-Tabaraani ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp solo nañ xadis bi jële ko ci mais jaare ko ci yoon imam Malik ibn ba Shayba rahimahullah ak ñeneen آه. و daa mel ni kon en tout cas ala kulli xaalin tabarakallahu ça c'était macha allah la waaw wax dëgg yàlla exposé bi amoon na solo trop waaw et puis tamit classé woon na ko d'ailleurs sax ni mu ko classé nii lu am solo la waaw ni mu ni mu ni mu defaree classé yi mboolem Euh, lu jëm ci wàllu xadis mu teg ko ci benn côté lu jëm ci fiqh mu teg ko ci benn côté doo a ñëw ci xadis bi en général après ñëw doog a ñëw leçon à retenir ci xadis bi loolu lu am solo la ni mu ko doxale alhamdulilah jazakallahu xayran waaw am na tamit euh, euh, xadis léegi beneen question tamit laay poser am na xadis bu ñuy wax parce que gis naa ni démb woon woon pour laaj ma ko moom fàtte wax. waaw kay lan ak lan la. mooy mooy xadis bi ñu njëkk jàng. waaw suñu jàng xadis. mooy al musalsalu bil awaliya. waaw bi ci des. al musalsalu bil mahaba. voilà mooy xadis bu ñu bu ñu njëkk jàng si kenn. waaw voilà. al xadisul musalsalu bil awaliya mooy la mooy ban. arraximu. arraximuuna. yarxamu raxmaan. yarxamuhumu raxmaan. raxmaan. يخمو من يخمو من في أرضي يا خمو من في السماوات من في السماوات من السماوات ولا الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء لولو ميتاكي موي ني ني يرماتي اها يالا سون بارام فين ييرم اها ييرم لين سي سوف يالا مي نيك سي كو اسمان لا مين ييرم واه ليغي ليغي ليغي المسلسل بالمحبه نك موي بان ah xaw na dëgër si man. <laughs> boobu kan moo ko jàpp. loolu wax waxa ko noo ko bay. Hmm? voilà kon loolu la dégg ah lu lu mu wax. moom la yonent bi sallallahu alayhi ne. Ah. waaw ne jullee. dama laa fonk. dama laa bëgg dama laa ah. jullee ba pare ne wax ah. allahumma a'inni ala zikrika shukrika waaw kay xaalis yooyu lan moo tax ñu indi ci bi ñuy tàmbali lan moo tax. pour ñu koy fàttali. moom dani nee na pour pour waxal ci waaw nee na pour ñu koy fàttaliwante kenn moo keneen kan moo am beneen explication lu tax parce que gis naa ni kenn laajul lu tax am na nag yaakaar naa am na ku ma ko laajoon en privé lu tax waaye dinaa bàyyi gars yi tontu pare moo indiqué ko moom ci boppam bu fekkee tontu ah lan moo tax. mooy mooy mooy maanaam xadis yi nga xam ne. Mm-hmm. moom la ñuy jàng. waaw mooy bu njëkk bi. waaw mooy bu njëkk bi. waaw. Euh, mm-hmm. mm-hmm. la boo nekk ci borom xam-xam kon bu njëkk bi loolu la mooy li wax. moy tradition la ci borom xam-xam yi bu ñuy jàng xadis ñuy njëkkee jàng bobu moy hadith mom la ñu wax musalsal bil awwali wala xadisu rahmat musalsal bil awwali moy hadith yi nga xam dañ wax ci yorma ya subhanallah euh alhamdullilah euh dañuy lolu daf ñuy manam day day day day dañuy réconforter ci maanaam ñun ci li ñu nekk alhamdulilah daf ñuy réconforter na hadith bobu moy hadithul musalsal bil awliya ndax euh li tax ma ni daf ñuy réconforter manam parce que hadith bi dani yàlla me yentou sallallahu alayhi sallallahu alayhi wasallam ne naka la sax arrahim ñiy yërëmaate yàlla mi nga xamne mo fess del dell yërmande mi nga xamne mo moo yaatu yërmande dana len yërëm yeurum len ñu ci kaw suuf bu ko defee yàlla mi nga xamante ne moom moom moo yor moo meelu asamaan yërëm leen léegi ah, ah ñun lu ñu xam ah, maanaam da dañoo xam man man individuellement damaa xam koo xam ne dafa doon wax ne maanaam ñun ah, ci maanaam ñun suñu daayira dañuy nekk ci caaxaan ba pare moom mu gis ne da doon jàngale ak da doon jàngale xadis ki mu njëkk jàngal xadis bi xadis bi mu ko njëkk a jàngal mooy dane def ni ko def ni ko yent bi dane inna li kulli muslimin xidda maanaam jullit bu ne am na tàngoor maanaam xoolal li baatu jullit bu ne am na tàngoor ni mu wuutee ak baat xadis bi nga xam ne day wax ci yërmande tàngoor mooy xadar xoolal baat bi ni mu wuutee voilà yaa subhaanallah ànd ak ànd Euh, euh, euh, xadis boobu oh, alhamdulilah ñun ñun ñun dañ ko solo mu jóge ci ñun ba ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam alors que moom moom seen xadis bi amul xamuñu sax saxaaba bi ko solo donc mu nekk encore beneen mbir boo xam te day réconforté ñun alhamdulilah suñu daayira bi ñun ci sunna la ñuy doxale insha allah wallahi alhamdu wal minna legui nak deuxième hadith bi li tax ñu indi ko al muta musalsalu bil mahabba al musalsalu bil mahabba moy manam kenn ku ci nek da nan ah yow de sopp naa la ah bul bàyyi di wax ginnaw julli gune allahumma anni ala zikrika wa shukrika wa husna ibadatika yàlla yàlla nga xettali ma nga dimbali ma ci ma lay tudd ala zikrika ma lay tudd wa shukrika ma lay gërëm di la sant wa husni ibadatika ak may rafetal sama njaamu bu ma lay jaamu ñu mu ne xadis boobu xadis boobu noonu yonent bi sallallahu moo ko waxoon Muaz ibn Jabal radiyallahu moo ko waxoon yonent bi sallallahu moo ko waxoon Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu eh, ah, ni noonu ah, xadis bi ñu koy solowee noonu ah, ba ci ba ci ñun insha allah alhamdulillah Euh, loolu nag li tax ñu indi ko mooy daayira bi dafa tudd na fillah ñi nga xam ne dañoo soppante te yàlla tax loolu moo taxoon ñun ñu indi xadis boobu musalsal lil mahabba ok <laughs> Allah voilà